lool defe na waaye defe naa ne mosu leen ma dégg ma wax sama diggante ak président Macky Sall waaye nag day toll jamono joo xam ne leeral dafay am solo président Macky Sall nag ma wax leen man la ma ko wax lépp du ma ci dindi dara ci wàllu bilan dama ci teg man du kuy du ma kuy wax ëllëg wax waaye nag fokk ma wax leen li nga xam ne moo jot a xew li ma leen wax mooy dama naa ne Sidi Ba wax na ko yàgg naa ci politique ba may am 32 ans le candidat présidentiel boo xam ne troisième la jël ci élection boobu la ma ràññee directoire de campagne boobu fanweeri at am ak ñaar. kon bu ma ñëwee ba toll fii ba am sën kon maa ngi bëgg a yàgg ci politique doon ci nag aussi responsable bu am expérience. kon bu may toog di waxtaan ak président de la république président Benno Bokk Yaakaar mu jox ma parrainage parrainage boobu nag ma sant ci aussi ñu mel ni équipe bu ñoom Pape Mayel Thiam. toog nañ ca seen permanence boobu presque ba trois heures quatre plus de deux mois dafa amul responsable bu ñëwul seet si ma ko ma def loolu ëlbateku wër Sénégal booba dafa ma waxtaan ak président Macky Sall am accord ak sur la présidence de l'Assemblée nationale. man néew ma néew ma ci politique néew ma ci politique. du ma ci apprenti te ku ci am fula laa nag kon kenn du ma toog maanaam ba dernier moment nga naan indil sa kii loolu amul li am li am mooy dañoo discuter li ñu waroon a discuter ñu am un accord ferme sur la présidence de l'Assemblée nationale noonu la ko sa amee d'ailleurs parce que ba mu may nommé conseil économique social et environnemental waxtaan nañ ñu ko tënk ko deux mois donc président Macky Sall li may wax dëgg la xam na ne moo am. mu loolu moo am. s'il vous plaît. s'il vous plaît te loolu dugal sax ay alxuraan ci biir waaye ku tegoon fii kàddu ñu teg ci parce que loolu moo am. li am nag le septembre bi ñuy bi le bureau de l'Assemblée nationale. 9h26 ci suba ci la ma woo ñoo ne ma message dama ndax ma woo la ma ne ko waaw mu ne ma ma daal seet naa ko ba seet consultation envoyé damay changer avis diw laay def président de l'Assemblée nationale. 15 minutes avant ñi mu yónni ñëw pour jox information yi député loolu mooy li am leneen amul heureusement d'ailleurs ma sant yàlla ne cardiaque woon politique nag ku ciy ne mais woo nga sàmm sa bi loolu doo doxalee noonu ak sa responsable doo doxalee noonu ak sa jigéen doo doxalee noonu ak sa am di loolu mooy li nga xam ne dogoon naa ko wax ndax moom ci boppam xam na ne fukki at muñ na ko mu ci am ay injustice yoo xam ne yi ah ñëpp fekkee nañu ko ba ñu may jógee primature bi ma wax non nga ñëw ak Grand Yoff kon da ngaa war a dem waaye def naa ne premier ministre bi maa ngi koy ñaanal doo mën a gagné na Parcelles Assainies doo mën a gagné na bureau de vote doo mën a gagné na waaye à chaque fois Mimi Touré moom cas spécial lay doon waaye ñu ko rek ndax li la tax a jóg ak li taxaw mooy Sénégal moo am lu mu ci waaye yu metti lay xol lu ay ëmb moo koy bës yu metti waaye bu la sa dëkk taxee jóg nga jàpp ne war contribution ndax nag koy New York moo gën moo gën a bakkane moo ko taw journaliste yi lu soo nekk def la benn fa ak yu mel noonu waaye loolu yëpp da koy muñ daal di ne dama war a ñëw indi ci suma expérience. may woo même sax cadre yi nga xam ne ña nga bitim réew ñu continuer ko def waaye na seen xol yi dëgër bu baax a baax kon la xewoon yëpp investisseurs yi yàgg naa am ba may conseil économique et social fekkee ngeen ko. kama wutu ko jarul ma leen di nettali diggante ya ndax dama jàppoon ne comme ancien premier ministre bu amee tolof tolof ak président bi nga xam ne mooy sama président de parti man mii am niveau premier ministre man maa ko war a aw maa ko war a tontu waaye noonu it ku téléphone moom man koy bëgg a min te na ma woo ne ma waaw man daal defe naa ko ma xool waaye dama koy indi nga jóg moom mu toog waaw am ñu naan sax waaw yow yooyu yëpp yow est-ce que amuloo li tubaab naan nayi bëri ma ne leen noonu nayi bi day tax nit ki boo jëlee choix dañ naan choix de vie maanaam nga jàpp ne man daal nii laa bëgg a dundee nii laa bëgg a indee contribution bi suma dina yooyu bu nga koy muñ da nga koy encaissé ndax Sénégal day teg ci kanam ndax nag alhamdulilah rabbil alamin bu la yàlla ubbi lay wërsëg war ngaa jàpp ne ci wërsëg woowu ak ci xam-xam ba ak ci expérience bi war nga koo delloo réew ci jàppale bi nga xam ne mooy liggéey te Sénégal yi teg ko fi te loolu it aw ci benn lu may def kooku it bëgg naa ñu xam ko bu ko defee ñu xam bu baax na ne lu ci lay doon da ngay say xarit say am di say mbokk say àndandoo ndax xëy na yow la nga cay mën a muñ ñoom duñu ko jëfandiku te dara taxul nag souffrance boobu ñu koy am ci lu dul rek doon sa sa an say àndandoo ak yu ñu mel noonu ñoom it maa ngi leen di jégalu bu baax a a baax ah di leen sant ci jàppale bi. moo ne ci diggante bi fi ay proposition pour liggéey bi ci réew mi dul jeex te président Macky Sall na ko offrir nañ ma ay poste Nations Unies yu kàgg ba ca mujj un mois avant élection législative bi danañ ko jottali waxtaan bi moom xam na ne wax naa ko ne ko nag man li may jàpp ak li may choisir mooy jàppale la mu ne ma bëgg faire le bon choix un mois avant les élections législatives te jàpp naa it j'ai fait le bon choix ndax toog naa sama réew continuer di ko liggéeyal. li ma bëgg nag euh, mesdames messieurs les journalistes ngeen comprendre mooy waxtaan wi du affaire wu poste du affaire wu privilège maanaam tawu feex bu rek kon du fii di waxtaan ak yéen ndax ca diggante bi nag moom ci boppam yónnee na ma daaw yu dul jeex def ay proposition yoo xam ne du ma ko tudd fii bu doon taw feex ak privilège ak kon nga jël privilégié poste yooyu ndax poste sax moom boo koy dund ma fàttali ne man fonctionnaire international la woon ni ko Sidi Ba fàttali sànq nekk New York di def ab département di jëflante ak ministre yi nga xam ne ñoo ngi ci àddina bi yëpp ak kilifa yi waaye man maa jël contact ak président Macky Sall xool trop fii. ne kii kat defe naa ne war naa mën a yor Sénégal ànd moom booba defe naa ne amul fonction géologue la waaye fonction boo xam ne bii amoon na ko amu ko woon donc amuloon mu jox donc ànduñu woon ak moom ndaxi poste defe ne euh, loolu euh, lu leer ndax amuloon poste bu mu joxee ma àndoon ci nag ak ñeneen ndeysaan ma sama xel dem ci Habib Badara Cissé bi nga xam ne jóge na fi il y a un an ko àjjana la woon ku am taxawaay waaye sama xel dem aussi ci junniy junniy junniy militant wu APR yi ak responsable yi nga xam ne 2012 la jógoon taxaw waaye tey ñu ngi naan waa ñun kon sunu engagement boobu pour la woon ndax li ci ëpp dañu jël ñi nga xam ne ñoo koy doon xeexal teg leen ci seen tool. dëgg la di leen di romb yow nga bàyyi leen. man dama jàpp ne jot na nag bu nuy ñu dugal ci li ñu naan ay valeur ak ñu dugal ci éthique. man dama jàpp ne politique du rek ñu jaaj wax na génn ci. du ma jiital sama mbokk bàyyi ki nga am ne moo mérité du habit de confiance dama jàpp ne nag dañ cee war a boole aussi des valeurs sàmm kàddu yi ak respecter suñu